remercier les yéen ñëpp mais remercier aussi ñi nga xam ne euh, ñi ma doon souhaiter un joyeux anniversaire mais ma ngi leen wax né euh du anniversaire bi mënul neex teraanga nag kenn du ko dellu mais anniversaire bi mënul neex mënul neex parce que d'abord ensuite sama anniversaire bi sama anniversaire bu dese papa moom la njëkk a def ci suba gi mom la defal kàmmi ci suba gi euh, waye li dal li dal ngiraan njaay tey tax na sama anniversaire mënul neex non mënul neex mënul neex waaw dinaa dinaa nangu gâteau bi nag waaye anniversaire moom mënul neex ndax dafa mel ne dafa mel ne dafa faatuwaat tey